comme ni ñu ko xamee Tëngéej dafa nekk dëkk dafa bokk ci dëkk yi nga xamante ni depuis 2012 le président mag Sall li mu fi investir bëriwul ci dëkk yu mu ko investir nga man ci citer le pôle de Diamniadio le pôle de Lac Rose entre autres aussi le TER ak le stade Abdoulaye Wade nouvellement inauguré ñu seetlu aussi ne jeunes yi nga xamante ni ñoom ñooy jàppale président de la république ñoom amul ci dara loo xamante ni ñii fi toogal président de la république boole na leen ci ñu ci benn instance de décision amul yenn benn élection du ñëw bañ consulter la jeunesse. ñu gis ne depuis Mathusalem ñi fi nekkoon nekk ay responsable politique toujours ay vieillards la ñuy nekk yoo xamante ni ba lañ leen a gis campagne jot wala ba lañ leen a gis benn événement bu malheureux. xew ci dëkk bi ngeen gis leen ñuy daagu ci dëkk bi yor yori donc loolu lañu wax ne bu ñu bëggee échéance yi nga xamante ni dañ dañ ko jub si président de la république am ci ndam il faut ñu intégrer ci jeunes yi naka ngay mën a joxe huit cent parrainage ñuy dem di def ay consultation pour les législatives amul benn jeune boo xamante ni woo nañ la laaj la sa xalaat ci élection législative yi mu jaaxal ñu torop ñu déglu déglu déglu mu jaaxal ñu kenn woowuñu loolu moo tax tey

Parce que la jeunesse, ici au niveau du département, est totalement restée en rade. Tout le monde